tey ngi lay fay. sa diggante ak ki nga xamante ne mooy El Hadj muy tudd tey doomam ngeen def sa teewaay tey sa teewaay tey si tudd bi. waaw c'est normal El suma rakk la suma doomu ndey la et puis conseil municipal la man ci commune bu Yeumbeul Sud nekk aussi parmi les meilleurs conseillers de la commune donc yàlla dogal tey moom tout tànk yëgaloon ma ko. donc ma ne woon euh, lu mu xat-xat aussi nañu fexe nuñ fi nuñ fi yegsee donc euh, saafoon teg moom saafoon teg famem saafoon teg waa quartier et ñaanal aussi xale bi nga xamante ni moom moo moom moo gane si yàlla def ko muy magum lislaam yàlla bàyyi ko mu dund te am day ak bàyyi loolu moo doon suñuy tànk tey. tey sa diggante ak El Hadj kon nekkul tey loo xamante ni ëttu politique rek ah moom dépassé nañ ko léegi non non dootu ëttu politique El Hadj Diène ku ko xam fréquenté ko ñaari fan rek di nga xam Baara Gaye te jarul nga gis Baara Gaye man aussi mu nekk koo xamante ni ku sori ci man la ndax lii du ñëpp ñoo ko mën a am ci man ku ne xam na fi mbas mi to autorité yoo gis muy préfet muy maire yi muy sous préfet ñëpp wàññi li nga xam ne mooy déplacement yi donc tey muy tudd ma ñëw te ku ne xam na ni boo ñëwee ci tudd bu mel nii nit kuy def politique ku mel ni hélas yenn mesure barrières yi duñ ko mën a respecté ak yooyu donc yooyu yëpp ñu ko braver pour ñëw tey donc ça veut dire que sama diggante ak hélas vraiment euh, dootu affaire politique affaire doomu ndey la daal sama rakk la waaw. jërëjëf merci beaucoup ok.